bonsoir bonsoir bienvenue sur votre première chaîne de télé musicale du Sénégal mbokk Akharidi. ak après une semaine de de recherche wala une semaine d'absence, absence sax laa ko mën a tuddee euh, ndax euh, bëgg lu dul bëgguñu si fidèles téléspectateurs ça, su nekk heure bu ñu ñëwee ñu leen di bégal ci ay xeetu baax baax yaakaar ni Sénégalais yi mais nanu rendez-vous wi nga xamante ni si c'est tous les jours à partir de 18h Boga Mama Mbaye di leen 19h spécial agendaar bu tey bi nag ndax tey yaakaar ni doon fi am artiste woo xamante ni si ci première temps bi newoon naa leen saa su nekk dama leen di bégalee ak ci playlist woo xamante ni si artiste lay doon boo xamante ni si dinañ waxtaan ci moom ci lu jëm ci carrière am dinañ waxtaan ci moom lu jëm ci sénégalais yoo xamante ni si gëj nañu ko gis waaye ci beneen 30 minutes bi ci topp dañu fi invité koo xamante ni si ndaanaan la sénégalais yi bëgg nañu ko sénégalais yi gëj na nañu koo gis sénégalais yi miin nañu ko sénégalais yi xam nañ xeetu ambiance bi muy def ma indi ko ci plateau bi mu dalal leen tey nii laa leen bégalee ndax ki ma invité dafa doy waar xale bi euh, diggante Grand Yoff banlieue bi miin na nañu ko xam na nañu ko waaye nan ma ko nëbbal tuuti ndax tey spécial ambiance lay def sénégalais yi dañu ko yàkkamti woon kooku mooy Alaaji ci Coppet mu baax mi waaye ñu ma àndal dinaa ñëw ci ñoom danoo neex borom euh, euh, xama lan ran ran kin san ran ran kin ki tag ran ran kin bacax bacax ki sa ki sal ki sa ki sal ki sal ran kiis kiis ay ca tey tey xam ni tey xam ni mbir mi dëgg-dëgg Tumba la Rumba Daaro Ndiaye moy série pap Aline yakar ah. eh, eh, naa ne nuyu na la waye fàttewu ma ndaw borom cieb bu neex bi ah laare tubaarkàlla tay li nga ceebu jën ci rew mi ken musuko gis yaakaaroon naa ni loxo bi dafa réer waye loxo baangi fi batay maangi bekk ci yow tubaarkàlla tay loxo la jël diko dank ma la wax li eh, ci programme yi nga xamanteni si nag programme semaine bi suma djumul Tarba mbay mu ngi wote rendez-vous fele ci 5 le 21 di wo Sénégalais yëpp pour ñu fekk ko fa waye ki nga xamanteni si Sidi Diop mom tamit dimanche bu jot ma ngay wote fele nga xamanteni si ci 5 wali sek mi ngi wote nekk fële nga xamante ni si mooy Cofok tous les dimanches waaye cay dimanche yi eh, si dégg waali ey eh, waay oy ay lii lan la da ngeen a doy waar ah da ngeen a doy waar da ngeen a doy waar Petit Jobet bugguma nga nuyoo bala maa ñëw ci Papa Ndiaye geeg yëf yi sama yaram dafa tàng te tey la la ni dama laa yàkkamti woon nga yàkkamti ma Petit nuyoo ak sénégalais waxuma la nuyoo nag neel dar ma xool asalaamaaleykum ci laay nuyoo te mooy dëgg wax ji may ki ko man wóor na yàlla wax ji mooy ay waaw waaw petit copet xale bi Grand Yoff la dëkk naan la sénégalais yi miin nañu ko waaye bu ñëwee ànd ak ñi mu war a àndal yaakaar naa ne tey réew mi dina yëngu dama koy daal di bàyyi nag mu nuyoo ak sénégalais yi koy seetaan le temps que ñuy wéyal waxtaan wi nga xamante ni si dama ciy jëm man ak moom ndax dama gis ay affaires yu doy waar yoo xamante ni si dañ ko cee sélectionné euh, te bëgg naa ñu waxtaan ci petit coppet mais namoon naa la frère. billaay boogaa maa la raw. mais Baye Fall naka ndax ma yi. waaw sant sëñ Fallu mi ñu bëgg waaw billaay sama waa ji. sant sëñ Fallu mi ñu bëgg saa su rek. wallaay di wax nag asalaamaaleykum Sénégal. di nuyu ñëpp ñuy seetaan téléspectateur yëpp. di nuyu nag sama Paris. sama États-Unis Grand Yoff waa waaw gi nga xam ne falaa laa falaa fa laa màggee fa lañ ma xamee. Mhm. te maa ngi fa yëngal ba mu neex ma te dara du yëngu. waaw di nuyu waa Grand Yoff yëpp. Mhm. di nuyu sama yaay. Mhm. bi nga xamante ne mooy sunu yaay. di nuyu sama nijaay Cheikh Fall Dieng mi nga xamante ne bagage yëpp moom la. bu ñuy dem daf ñu yeb comme kuy yeb seet. parole yu nu wax mu neex yàlla ak mooma. kon di len nuyu dal di len wax ne nan doxal ba ci karam après da danañ comprendre. mais petit euh, euh ñi nga andal sama gaay yi dama leen xamé ci télé bi euh amna bakku bu ñu doon tëgg ci télé bi té té sénégalais yi bëgg ñu ñu ci and ak père Thiamas bakku bob bakku bob bàkk na danati la la na danati la. tan sambran tan sambra da daan daan wuraan gi ñappax ñappax jën ñappax jën ñappax té wuraan gën sal taj wuraan gën gën dambran wuraan gën ñappax ñappax sal gisal sal gisal sal 何 <laughs> mais petit kon affaire bi daaneel bi foofu la nekk. Euh, ndax daaneel gi foofu la nekk. mu yaay rakkin mu yaay ñu ne rakkin. waaw ok jërëjëf loolu ca kooru ngéwél la ne war a euh, ma gis ni nag euh, dañu la nome ci li nga xamante ni si mooy Raaya Music bi nga xamante ni si moo ngi am fële nga xamante ni si mooy ca Olympia Dakar mm-hmm. ñu nommé la révélation de ne bi nga yëgee loolu liggéey wi naka la demee bi nga ne bëri gis ñu nommé la ci ñi nga xamante ni si dañuy xëccoo raaya woowu nga xamante ni si mooy révelation ñu nommé la ko yow Euh, naka naka naka naka nga ko gisee. waaw def na ma lu bari nag. Mhm. ndax ku ne xam ne atu ren bi. 2020 mhm. bi mbas bi dafa téye lu baree bari ci aar bi. Mhm. kon jàmbaar yi dëgg ñoo mën a révélé wo dëgg la parce que ku ne xam ne son. ku nekk ci showbiz nga xam ne single ak clip bu jaar yoon bu ñu mën a teg ci télé nit ñi seeraan ko yombul. dëgg la fa nga doon jàmbaar dëgg pour am ko. surtout ngay liggéey doon xale. du manager du staff du dara da ngay jóg yaak sa mafia rek ñi ngeen àndal. ngeen di taxale bëgg lu baax bëgg lu professionnel. Mhm. parce que tey tamit bu ñu neexoon. Mhm. ñu def comme suñuy meram dugg ci studio yi nga xamante ne yi nga xam ne boo demee benn machine a fa ne. Mhm. ñu enregistré nga génne ko kenn di ko dégg. ngay clip ut benn caméra boo xam ne c'est pas professionnel ñu clipal la doomu image bu set. waaye bu fekkee da nga bëgg benn niveau bi. il faut nga mu jaral la. nga def lenn li naka jekk nag bi ñu duggee ci de mille vingt te mbas bi xaadim mi sama mag la ñoo bokk ndey bàyyi. moom xaadim dama ko ne xaadim ma ne ko ren jii. damay bokk ci révélation de la très te bu ne dañuy fexe def suñ son boo xam ne type de ne lay doon. te war naa mën a ne. ndax damaa dégg ñu xewal naan xale koy def. dëgg la te taasu doon na loo xamante ne nii. ci deret lay ne ci nit. dëgg la maanaam ñi nga xamante ne tama. ak xalam ak kooraa nga xam ne doo dem di ko jàngi fenn hmm. da ngay mu nekk sa deret hmm. taasu noonu lay noonu noonu la demee ci nit dëgg ma ne ko war nanoo mën a def loo xamante ne gars yi defuñu ko hmm. kon nanu liggéey moo tax bi ma ko gisee daf ma daf ma dafa def lu bari ci man may xaadim li ma bëggoon yàlla def na ko kon nanu góorgóorlu nekkaat ci leneen léegi nag vote yi ñu ngi ci moment bii waaw dañoo joxeel télémusique nga nekk joxeel lu la sax. waaw man maa R8 waxeel ni lay votelee ak nanu cay jàppeek na ca nit ñi di songee ba nga jël ko defal lu la neex. Grand Yoff. waaw Parcelles Pikine Grand Médine. waaw kay Géejawaay Médina waaw. képp kuy béggee Petit Coppe. waaw kay Grand ndakaar gi nga mm-hmm. xamante ne fa laa defee sama lépp. Mm-hmm. maa ngi leen di wax ñu votel ma R8. R8 nga envoyé ko ci 24 888. SMS bu 150 la. 24 888. nga koy R8 nga no nga petit copet. waaw nga envoyé ko ci 24 888. boo les 5000 crédit sax voté yëpp dana ma neex. waaw bu jamono neexee nga laal 15000. ma la wax li waaw mais na ñepp voté. affaire gi da wara a mel ni Sonkorongo ga ca gannaaw Banjul. Mhm. ndax buñ duggé Olympiade de Dakar danoo war jël. raaya bi andi ko biir Grand Yoff. te te te bu ñu nee Grand Yoff rek ci soutenir euh, man li may gis Pikine dama koy gis Grand Yoff Pikine laa dëkk I live mhm. ko anglais bi di waxee. bu ma duggee Grand Yoff na may na ma na noonu laay gisee yéen waa Grand Yoff noonu ngeen koy dundee waa Grand Yoff ñoom it ñu gën leen a ñaax ci seen doom. dafa war a jël révélation de l'année kon vote yi ñoom nañ ci gën a góorgóorlu surtout Grand Yoff gi nga dëkk. waaw maa ngi woon ak Badara Kebe ne ko na voté bu baax a baax maa ngi ñëw ci moom ma Diop Diop maire de Grand Yoff mhm. Modou Sarr borom kër Xaadim Rasool ñoom ñëpp na gaa yi voté bu baax a baax a baax a baax ma jël ndam de Cheikh Bakhoum Yaas Ñas gaa yi mhm. na kulim jum kulim jum mais nag boogaa waaw li nga wax ci Grand Yoff daf ma neex mhm. man bu may tëgg soirée tropique mhm. boo fa ñëwee damay foog ne Wally Seck mooy tëgg fii ci fulla day fees dell am ñoo xam ne sax duñu dugg ci benn jeune boo xam ne ñaari clip la am ñaari single dafa ko fi lu jar lolu mhm. mais wa Grand f ñoo bëgg seen dom te mëna sop sot. te doom sot nag ci sot la bok deug la te bo wootee ñu ñëw lolu dafa dafa dafa neex ci xol. Mhm. nga am événement ñu gënal la ko say nawle artiste ñëw gis ce soir fees del mhm. bo yorul dërëm sax lolu sag la ci yow te ndam la ci yow. deug la ma ci remercier waat wa Grand yof bu baaxa baaxa baaxa baax di wax nak ne wa Sénégal. wa Grand f li ngeen doon ñaan. seen dom ngi petit jopet. di leen wax ne dara commencé gul dama teeñu rek lima wara yenu a yenn ñëwagul. maa la ñëwal loolu damaa laxas bi rek yenu ko rek wooteegoo wooteegu ma li ma war a maa la wax loolu barke yonent ah. la wax lii Petit Thiopete en 2013 gis nga génne benn morceau woo xamante ni si waa yi xam naa dinañ ma ko kaleel droit des enfants 2013 nga ñëw ne droit des enfants sa diggante xale yi nu mu demee noonu. waaw xam nga 2013 nag booba man xale laa. boobu maa ngi waaw te laa maa ngi ci 14 ans. 14 ans waaw 2013 ñu war a def single ñu ne ma lan ngay def may leen droit des enfants. ci fu la waxoon ci nag ay paroles yu amoon solo. Mhm. boobu xale bu ndaw laa. Mhm. mais nag. ma def ko ngir xam nga xale moom xale moomin la xamul dara mm-hmm. xamul dara waaw mm-hmm. te tey boo ñëwee doon xale mm-hmm. andi benn image bi nga xamante ne moom la nit ñi war a bëgg da ngay ñëw woy xale yi ndax xale mooy dooni mag ëllëg dëgg la li may li may wax rek xale mooy dooni mag ëllëg ci laa doon wax njàngum xale yi bu ñu ko fonkul ñu yori réew mi ëllëg dëgg la njàngum xale yi waaw xale mooy dooni mag ëllëg loolu waroon ñu defaat ñu defoon droit des enfants waaw te amna bagage a ne ci biir. Ah. ndax ma ci Papa kon ma nga petit chopet, way na ci Papa ndjay Chopet. mu tay ñëw and ak mobilisation bu doy war wa Grand yo fimne bo nga TNT euh, canal 212 di seetaan xalé wi nga xamanteni euh, révélation bi nga xamanteni si dama bëgg ñëpp fotel koko dama bëgg ñëpp euh, daal daw daal ko ci jappalé ndax don na ko xamanteni bis bu fi Sénégalais dem droit des enfants 2013 le ko bu ñu ñëwee daal di ñëw ci ay jàmbal yi ci def bu ko defee ñu ambiancé plateau bi def lu nu saf nanu dem seetaan yi droit des enfants c'était en 2013 Petit Coppet ay bay

jambal moom fi mu jógee dafa doy waar. Mhm. ndax ku dégg sama yaay ndey a géey mhm. sama yaay ndey la xalaas sa xel dem ci jàmbal. kon yow kon yow kon yow doon nga inspiré wu ci ñoom. waaw parce que nag kër googu laa màggee man bi may xale sama yaay presque ndey la xalaas la ma joxoon. ñu may boot man ci ay eh, lo lo lo lool lo lo ci ndeel lo xalaas loo lo ni si petit eh, tey jii booy toog ba si yàgg sa xel day dem ci moom wala jamono juñ lay boot wala ngay nekk xale daan leen topp mag ñi da ngay jekk ba si yàgg leen di ñëw ci moom jóge ci ñoom eh, waaw ci loolu noonu di ñëw moo tax ma tax andiwaat jàmbal ndax jàmbal jàmbal ba mu saf lo njàmbaan mu tem tamit ci ñoom laa ko déggoon maman ndeel a xalaas ko def ak ndey jaara géey waaye am na wax wax waxu neex woo xamante ne ko doon taasu mhm. sama xel day day nekk ci ñoom bu baax a baax te toujours da toujours da ciy nekk mhm. naan may koddu sëg wi ci yoonu lambay wi jàpp ci route wi jëm dagga desu ko bërëx se mi des na ko bërëx man manooma bay te mbaar newu fi njambe war na mbaam ne ndumbay gune te buso bañ na sa ji bu jillu nee fële bu doon petit copet mu gën a yof waxatu ko mais mais mais seen kër nu muy demee seen biir kër. këru ngéwël nan lay demee. dafa mel ni li ñuy gis ci ci ci ci théâtre yi yéen dafa mel ni noonu ngeen di. dundee nature boobu nag la ñuy eh. dund biir ngéwël. c'est nature boobu la ñuy dund biir ngéwël ni hmm. toogee di ko waxtaanee tama ji ak mbëg-mbëg yi. Uh-huh. danoo toog biir ngéwël léegi. waxtaan ndax tey danoo am sabar bu mag. boo xamante ne semaine tournée la tey tey tey. tey tey waaw Touba lan koy defee. ci fula waxal lu la neex. tànn biir gu mag la ñu koy waajal may leen gars yi kaay leen ñu jóg Mhm. dem Azandar. waaw wàcce ko ba pare doo ko ñëw yëngal Arafat. ba pare joxe rendez-vous jël bongo yeeg tama yi. Mhm. te dañuy toog di waxtaan. waaw te maa ngi ay histoire yu riim yoo xamante ne damay dégg gars yi di riim. riimal ñu xool preuve riim. ayca ayca. ñi jaay poussin matin teel lañ ma jaay lapin tuuti rek ñi jaay poussin matin teel lañ ma jaay la waaw 5 di du matin teel ma daje américain yi yor requin. cousin cousin Fallou Dieng bi sol lin ak dallu den maa ngi sol mbasin pocosin téye benn bouquin parisien ngi dawal terrain seen doom yi dawal pétain bi bët setee laa sangu ba set tal sama kaset di get benn maquette wéeru ci bàkket toog ci benn moquette benn garant bu sol lonet yegg si net ne ma petit coppet ma ne ñokket mu ne doñ ñet samay lonet Antoinette ne jamet yem ci net gaare firbonet ne ma petit coppet wax ma lu ni ma la gisee nii du lu ma ne ko kii nag moo jël samay lu net odet goset bi jaay boroset ci supérette bi nan ma petit copet qu'est-ce que aset ma ne ko côtelette bu saf bu set te nekk ci aset te ànd ak boroset xoolal man la set la ci laa la bët Elisabeth fekk mu taw ba sebet ñu naan copet saa sebet saa yi ma ne bërët di bëgg a wax may mel ni gaynde gu jati bat parole yi dafay leer moy raw lu joge ci solaire waxna ba dem Linguère tas fa may doomi séeréer tëgg naa fa ay tànni bir amna na ñu naan daa naani ber ay mer ñi wax lolu dañu réer man dama jiddu ci Linguère bir ngeewel ma mel fa ni wer galu taasu bu de teer petit jopet moy may reer sama mer la mu liggéey ca kër man xamna ne dafa reer khadim ah waaw baba kok kok kok rek kok rek kok waaw kok rek toog sama xarit bi ñuy wax Kader. waaw Kader moo ma invité reer dimanche huit heures. maa ngi sol ay dàllu ras de terre. Ah, ak benn survêtement bu vert. Ah. teg ci chemise bàyyi ko mu ouvert ndax boobu newul jamono hiver. Ah, xam nga man rek ak samay manière ma sañse nag ba teg cay weer. ci laatal sama routière. waaw daw ba forum de terre. fekk fa benn maire. waaw ci benn bayal muy jël air. air ma ne ko maire. waaw kër Kader. kër Kader mu ne ma coppite yow da ngaa réer. waaw léegi mu nga yoonu Nabil Souker. Nabil Souker tekkal ma nag yoonu leer. leer ma def tout droit ba kër Kader. egg jabaram taajal ma reer. reer soosu salade bu am pombiteer. pombiteer man fa reer ba xaw a neer. <laughs> taxaw ca balcon ba di jël air. di lire waa Manchester. xaadim. benn xale romb man ak sol poster. daa mel ni Fodou Diabé da lay dégg de. xaadim. <laughs> benn xale ma romb nag sol poster, waaw ma ne ko moo kii ku mu kadeer kii ku mu kadeer mu ne ma kii mooy xadi deer waaw rakki ceer mi jógee Angleterre man nag ma daanu leer xadi deer wax ma lu leer ne ma coppet nañ dem ci peer peer may ma côté matul weer ci lañ ma defal intermédiaire yóbbu ma ambassadeur ñaanal ma intermédiaire transféré biir inter moo tax sëy ba leer dama dib doomi géwal tey ay géwal danoo seet si géwal xam naa ne sénégalais yi euh, lii la rek kërub géwal xam nga ñun euh, danoo miin lii danoo xam lii ba ta bu ñu gisee ku ko man di ko def euh, dañuy naan tekk di la déglu dañ naan tekk di la xool ndax dañuy xam ne lii ngay def ci xool la jóge te ci xool rek la jëm waaye jambal damaa bëgg rési na ngeen ma waajalal jambal ndax bu ma

dama ne Badara Kebe moy mbeur Grand yof jox nañ ko cieur kérok bima xewle ñëw na sama kër te defal la fa la ko war. Badara Kebe dafa don ben doomu Grand bo xamantene di ne. bi mu jógee politique xam nga ni ku seexu xadim la. xadim bu ma ko waxee léegi damaa jooy. seet xam nga lutax motax mbax deret la. deret la yax mu reuy ci pinj mu reuy rek la meuna a bawoo. deug dëgg la walaay dëgg Badara Kebe lu bax rek la xam. deug la ci dara yi. nawetani école yi. ba ci ñun artiste yi. ku na xam na tous les dimanches dama doon teug tropique.

muy def lu baax biir Grand Yoff mm-hmm. kon ku ko sargal mm-hmm. sargal nga biir Grand Yoff dëgg te ab soññe la rek ab soññe daa mel ni ceeb bu neex nga def ca kaane da nga koy soññi rek walaay dëgg la waaw dañ koy soññi rek ndax li muy def fi mu teg tànkam foofu la mm-hmm. ku ko sargal nag sargal nga waa Grand Yoff yëpp sargal nga maire Grand Yoff sargal nga autorité yi nekk Grand yëpp parce que jàmbaar la te nekk biir Grand Yoff ñu koy ñaanal yàlla defal ko ndam borom mouvement li ñu bokk li ñu bokk nag mënuñu koo séddoo déedéet moo tax le 13 décembre bu soobee yàlla ca Kabana Kabana club entrée ba

producteur bu ma fëggoon nii. ma defal la sept morceaux. waaye producteurs yi ana ñu producteurs yi. ana nañ ci jàpp. xale yaa ngi de. yëf yi dañ cee war a jàpp. Ah. talent baa ngi fi. waaw ñi fi ne taasu dàq nu noo taasu. wallaay dëgg ñi fi ne dañ fiy jóge. dëgg la ñun xale yi ñoo fiy ñëw. waaw yor yëf yi. te ñu ngi gëstu maa ngi taasu naan jàngi leen bindi leen gëstu leen balaa sig sa dikk boo xewee te mënoo pare léegi xew yi dikk. dëgg la xam nga ban problème lañ fi bëgg a jëlee mooy. luy suñu ambition. jële fi taasu tëgg sabar ba mu neex la nga ñëw dem studio génne single ne maay kulli di woy sama yaay di woy sama baay moo ma yettal sabar su ma tëggee war naa tëgg dama génne fecc bu bees taasu bi dafa war a jóge ci niveau boobu ñu wax lu nit ñi war a mën a dégg dëgg la tey boo demee Nigéria jeunes ya fa ne dañuy créer di andi lu bees dëgg nga di génne loo xam ne day wër mondial xaarim yaa ngi dégg kon ñun ay doomu sénégalais lañu mm-hmm. ay musiciens lañ mm-hmm. rêvé wuñ ne dañuy ambiance ci xew yi kese danoo war a def loo xamante ne Sénégal ñëpp naan wii waaw te affaire yaa ngi fi mm-hmm. moyen nag bu nu ko génnee lan amul dëgg la moo tax ma ci waat Badara Kebe bu baax a baax. kenn du moom Badara Kebe war a làbbali fas wi. tegaat beneen single. Mm. tegaat beneen clip. Mm. macha allah nag. Mm. fan yi ñu ngi def ay vidéo gars yi di jël di renouveler ci TikTok bi di dugal bagage yëpp mu ngi ñëw. Ah. mais nan ñu jàppale. ndax xew yeeg mariage yeeg ngénte yeeg anniversaire yi kese. dëgg la lu baax la nag ndax moo mooy tax ñuy fay apartement yeeg. Ah. di def dépasse. waaye nag. danoo war a def carrière professionnelle. dëgg loolu moo nekk suñu bopp te ci lañ nekk nag. dëgg la te jóguñu di taasu pour succès. dëgg la ñun buzz taxuñoo jóg. maa la wax dañoo bëgg a def la du Ndiaye Rose liggéey. waaw ba ñu tuddee ko saalu grand théâtre dëgg ñun loolu moo nekk suñu bopp ba ëllëg bu ñu fi jógee suñuy doom ak suñuy sët bu ñu ñëwee ne seen bàyyi defoon lii. ci aar bi loolu nag xam-xam moo koy def. Mm-hmm. ak liggéey. Mm-hmm. ndax tubaab dafa ne savoir c'est une arme. kon nuñ gëstu waaw. Ah. mais c'est bien fait là toi Bouga Mbaye est moi aussi. ayca nanu seetaan di jàmbal suñu dellusee ci plateau bi dama ko bëgg ndeysaan na trois am ci bëti cofet ayca nanu seetaan jàmbal te ñëw ajërë si sab noon noo ko war a def sab noon noo ko war a def sa di na mu di ko fii xol ba di doog te du ko faj sab noon nin ko war a ayca ma nga noonu El Phénoméno laa ko tuddee ndax xale bi il est pétri de talent moom la ñuy woowee petit coppet mais petit mais ñi nga àndal xam nga ne man dama leen a bëgg. Euh, kër ga moom xam naa ni suba su ma wàccee fa laa ñëw ñu tegle wala ak deuxième. nu ah, nal euh, ci tama ji tuuti rek deux ah. secondes. xaadim waay. yëmbul iya, booga yaa waral li booga mbay yaa waral li wura gi ñapax ñapax gën ñapax te wuram gën san taaj wuram gën ci dambaram wuram gën ñapax ñapax gisa gisal gisa gisal gisan wuram giis giis taaj wuram cat cat ndeysaan waaye cat waaye tey cat non non baax cat catalati cat cay cat baax <laughs> waaye waaye waaye kontaan naa ci yow sargal Badara Kebe mu doon rendez-vous boo xamante ni si le 13 décembre la fële nga xamante ni si mooy ca tropique ñu fas yéene def spécial sargal Badara Kebe euh, bu ma juumul moo nekk fële nga xamante ni si mooy ca Kabana waaye damay dellu soit fii nga xamante ni si mooy ci raaya bi mag la ma samay gët daa neexatul mag la ma tubaarkàlla révélation de l'année ñu nommé ci Petit Coppet ku ci bëgg a euh, votel ki nga xamante ci moy Petit Coppet da ngay def R lan. 8 R8. nga envoyé ko ci 24 888. ayta bu vote bi nak du doy lu ñuy gën di doli muy gëna neex rek. wat ko R8 nga voté ci. R8 nga yónnee ko ci 24 888. di leen wax né nak groupe Ngéwél gi Fall bii. Ah. orchestre. Ah. du li kessé dé waaw ah, kay. ngo yaa nga ca kër ga tama yaa nga ca kër ga dañuy jouer live ci mariage yi la seetaan tey soxla ku leen bëgg a jot ci ban numéro lay waaw 700 lëm ah, ah. waaw 17. ok ah, foofa toj foofa jooy ayca <laughs> Petit Coppet kàddu gu mujj gi ndem liñ ñu cërale woon ci ay waxtu euh, mat na sëkk xam naa ni sax bëggoon naa saa waa yëngu waaye ndem tamaja tubaarkaala da nga yëkkati micro rek ndax tey bu ñuy tàggoo bu ma nee à demi soir comme bonsoir rek dañuy ambiance daal di génn ak moom su ko defee waa régie dugal générique ba mat sa batas foofa jooy ndeysaan ok ah, Petit Coppet kàddu gu mujj mooy santaat yàlla di santar Serigne Touba bu baax a baax a baax di jaram mam Cheikh Ibrahima Fall di santar rek di wat bu baax baax ndax ñun nak ci keuru talib lañ dëkk mhm. suñu keur ngeewel gi Fall tu dëgg la ndax sama yaay bima jur Serigne Modou Moussa Fall taawu Cheikh Ibrahima oh. lañ ko la la keuru Baye Fall la ñu nekk lay ndaysan ay talib lañ dëgg la ñoo def dara sax te dugaluñ ci Cheikh Ibrahima Fall dëgg la tay nak da nga bëgg Serigne Fallou laay ndeysaan sa waja tubaarkalla li lay wax rek Serigne fall Mbacke sama turandoo moy borom ndindi Serigne Fallou Mbacké ki ñu ma tuddee man mooy borom bindi laay wallaay la la la la alaaji la Makka xalifa ah. la Touba xalifa Makka ni man la ni ba foo demoon mu ne Makka mu ne Touba kuy sa bu say ndem ah. Mbacke bu soy nijaayam sëñ Bambay baayam ku ko lebal ker mu fay la guddi fu la neex jaaxaan fe jalas Serigne fallu ayam jada neex xam nga lu ko taxa neex mbokk jeex sumbul jeex loso jeex bela jeex dara sepp ji ba mut nga jaaxaan nak ci fay akasa nga tay sa mbandum nan sa bu la neexé nan ba nga war gàcce nga yow sa xariyar yar yu gor yow sa xariyar yar yu jigen ni jaxoso di jur nga yatt di nan di sowal sàmbaanit sëriñ Falloo ko def mi def du ko faj te doxatul eh. kilomètre foo jublu oto yi jooy wax leen jaajëfe Fallu eh, ku ko ci waxat di fekkee déwén eh, jaajëfe ku ko ci waxat loo fekke faj ko te ku ko ci waxati loo yootu jot ko jaajëfe Fallu bàyyi Cheikh Awa Balla saatu ah. sëriñ Fallu Cheikh Awa Balla waay mooy góoru soxna maam Fatim Mbacke xaar yàlla ay waay petit tamba ay petit tamba ay petit tamba moo jur Maama Mbacke bu su baati ngoon oh mais petit fët fii la ñu waroon tàmbalee nag ah tamba jeex na yëfee yëfee mat na nañu tàggoo danañ ko refaire kon léegi ñu joxante rendez-vous ci kanam tuuti ca sabar ga inshallah ci kanam tuuti na ñëpp ñëw Touba Arafat waaw en station celle Grand grave waaw waaw Touba Arafat. aicha ku bëgg voter da ngay def R8. R8 nga yone ko ci 24 888. le 13 décembre sargal badra Kebe balo ok ah, Serigne Fallou. docteur Grand Yoff bi. Mm, mm. japp jeunes yi ñii mu pikir ñi mu jox leen dom ñi mu entrer leen ci hôpitalu bopam ba. nga ni yàlla na jàmmam Kebe Serigne Fallou. à demain soir comme chaque soir. aicha et bonsoir. <laughs>